الحمد لله الذي حدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن حدانا الله والصلاة والسلام على من أرسل رحمة وهداية للبشر سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مبقي جناب gannaaw الله بجل جينا yàlla صلى الله عليه وسلم bi sallallahu مبقي ريومي مبقي بتم ريو mbokki àddina bi yëpp tey nag ñu ngi taxaw fii ci ëtt bu mag bi muy boggal ban ëtt la mooy xadratu rahmaniya bu samaatu cheikh Thierno Abdourahmane Bari waaye mu nekk xadara sayiduna muhammad salallahu alayhi wa sallam waaye mu nekk itam xadara cheikh Ahmad waaye mu doon xadara lislaam lan nag tey mooy xew-xew bi lan moo taxit ñu taxaw ci place bi lu taxit ñu ñëw ci jumaa ji lan moo taxit ñu jàkkaarle ak bunt bu mag bi loolu am na lu muy jàngale mooy liggéey bu mag bi nga xam ne mooy jumaa ji liggéey jumaa nag kenn ku nekk am nga ci cër ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na lu mu ci wax te alquran addu hoon na ci alquran ne noonu wa anna almasajida lillah fala tad'u ma allahi ahad kon liggéeyu jumaa buñ ko xasee ba wax jumaa képp ku ne xam na ne lépp loo cay def yaa ngi koy def te yàlla rek tax yaa ngi koy def itam ngir kalan sa diine ndax dafa bokk min sha'airillah dafa bokk ci mandarga yi nga xam ne nu mu gën a rafetee noona nga ciy gën a yëge yàlla su fekkee yaa nga ca di jàmm yàlla jumaa ji nag tey liggéey baa ngi nii kilifa gi nag yóbbu na ko ba fii ak mbokk yi ak am di jàmm yi ak ñi nga xam ne dañoo walanteeru di def te yàlla rek tax ñoom daal jël nañ seeni alal jël nañ itam seeni bëgg-bëgg yi nga xam ne ñu ngi koy uute yàlla def nañ ko ci liggéey bu mag bi ba jumaa ji toll na fii tey kon képp koo xam ne nag wóor na la wër yàlla ne yaa ngi jël décision pour liggéeyal yàlla wala am na som boo yore bëgg koo def ci liggéeyal yàlla yaakaar naa ne dara jiitu ca juma jumaa jaa ngi nii nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag képp koo xam ne da nga tabax juma walla nga bokk ca ñaay tabax juma donte xeer la donte suuf la donte weñ la donte ndox ma la ba ca sajaada ya ba ca lamp ya lu mu ci mënti doon yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na danañ la ko tabaxal ay étage ay soto yu bare bari ci aljanna kon nag mbokki taalibe mbokki jullit yi mbokki lislaam yëpp la nuy woo amul xejja ak seen li ngay mu toll nii képp ku ko gis da nga xam ne kii xol bu rëy ko taxawalee muy kan jamaatu Cheikh Cheikh Abdourahmane Bari fan la ko taxawal mu ko taxawal ci région ci biir Casamance waaye ci dëkk bu sell bi muy boggal kon nag mbokk yi li ngay daal di gisal nañ ko ndoor képp ko am looy def nag te bëgg koo def ci yàlla fii moo gën a gaaw ndigal la nag lu ñu jëlee ci Thierno Abdourahmane Mali waaye nag waxkat bi def ne ndigal caabi la bu ëppee du ubbi bu manqué du ubbi te bokk jaawale yàq kànnaar bi lan mooy loolu gis nga ndigal lépp loo xam ne soxla la boo duggee ndigal loola dafay faju xam nga ndigal bi mu ñëw bi ko xol bi nangoo rek nekk na njëriñ ci ki nangu waaye rawatina nag bu jëlee ndigal loola su ko jëfandikoo lum ko jëmale rek bu boobaa caabi lay doon ca loola kon nag ndigal li gën a gaaw ci foj aajo ndigal li gën a gaaw ci feebar ndigal li gën a gaaw ci njaboot mu ngi nii waaye loolu yëpp la ca gën a yéeme te gën ci ëpp ca njëriñ mooy lan am yàlla bu wér boo xam ne dara du ca rax mooy liggéey jumaa wala fu ñu koy liggéeya nga bokku ca nga jël sa alal def ko ci te yàlla tax te defin bu sell sell kon woo nañ taalib yi yëpp ñu ne nag képp koo xam ne am nga loo ci bëgg a def bu fekkee ne fii ci Sénégal la na nga fexe ba jokkoo ak ku ñuy wax Yacine Ndiaye Yacine Ndiaye nag numéro téléphone am mooy 77 631 05 73 631 05 73 bu fekkee ci angale la nga ne 00221 77 631 05 Sébine Tiri bu fekkee ne nag ci instant sommet la ba tey mu ngi ci dakaar boo jokkoo kook moom boo ko joxee itam lépp loo ko jox dana ak ci ci compte bi Issa nag numéro téléphone am bi mooy 77 629 58 17 0021 77 529 58 17 kooku mooy instant sommet nga ñëw nag ci euh, Rahmatullahi Ndiaye. moom itam bokk na ci ñi nga xam ne lépp loo ko jox dana àgg ci biir compte bi numéro nag mooy 78 198 23 64 mooy 78 198 23 64 ñu dem nag ci Pape Sefal Kaar numéro bi mooy 77 640 35 89 nga ne sere sere tuutu wan 77 640 35 89 waaye nga ñëw ci Pape Demba Sakho ca Dakar lépp loo teg ci loxo am dana dugg ci biir compte bi moom numéro téléphone am 77 333 94 36 su fekkee nag ci anglais la nga ne 0021 77 tiri tiri tiri 94 36 nga ñëw nag ci. Binta Diallo fële ca Gambie lépp loo xam ne teg nga ko ci loxo am dana àgg ci compte bi moom nombre téléphone am bi mooy 00 220 nga def 779 10 sero 1009 00 220 779 10